nit nag boo gisee kuy dem da ngay ànd ak moom ndax nga dem waaye boo gisee koo xam ne si ne demul nga topp ci ginnaaw mën la damay dem boo topp ci ginnaaw da ngay sonn rek da ngay dem ba yaakaar nga yegg na nga tourné waat zéro dañoo gis kuy dem dañuy ànd ak moom di dem ñun ñoo àndoon ak Sonko te gisatul ne ne mi ngi dem ñu gis kuy dem kon kooku ñun lañ moom la ñuy àndal ñu ngi ànd ak président Macky Sall kii di Sonko amatul lenn loo xam ne si la tey dinañ ko mbooloo mi kenn ku ne maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa di nuyu sama mbokku mbootaay yi ci mel ni ñoom Ami Ndiaye ak ñoom Daba Ndiaye bu daal damay juum maa ngi leen di wax ne bés ni ki tey bàyyi naa Sonko léegi man maa ngi si Macky fas yéene bés ni ki tey bàyyi naa Sonko léegi man maa ngi si Macky te di leen di ñaan ngeen ñëw ànd ak man ci Macky bu boobaa du ngeen ko rëccu loolu laa leen di ñaan yéen ñëpp ñëw leen jàppale Macky ndax lii mësuta am ci koñ bi lii mësu fee am lii moom mësuta am ci koñ bi man daal maa maa ngi leen di ñaan ngeen ñëw jàppale Macky waaw. ñuy wax jotaayu politique boo dem. fekk borom musóor yi bëri fa jotaay boobu war nga cee rafet njot ndax jigéen ñi ay jàmbaar lañu di leen wax ni dégg na li nga xamante ni moo fi am lépp waaye ndokk yàlla bi mu méngoo ak doxalinu sëriñ bi ndax dëkk bii di Touba sëriñ bi bu ko neexoon toog fële ca këram waaye seen mébét seen bëgg-bëgg bëgg a saafara seeni jafé jafe moo ko tax dugg ci li ni eh té li ngeen wax fi yépp dégg nako amna programme bo xamanteni ci ay infrastructure prioritaire de base yu président Macky Sall la bokku moy dimbali len ci walu formation dimbali len ba ngeen mëna am as tuut soo xamante di ngeen ni mëna xey di demal seen bop doot len laaj kenn ba jafé jafé bu ngeen am ngeen fajal ko seen bop kon. di leen wax ni sant nanu soxna Ndey ak sëriñ ak sëriñ ak sëriñ Abdoulaat Abdoulaat Gueye eh, Abdoulaat Diagne ah, waaw eh, sant nan bu baax a baax na seen xel dal li ngeen fi wax ñëpp ak sëriñ Diop mi nga xamante ni moom moo ñu fi indi di wax ni na seen xel dal comme ni ko suma frère Bàcc waxee lepp lo xamanteni jafé jafé la bo xamanteni dégg nañ ko fi insha allah taala danañ ko fajj ndax sëriñ bi yalla dafa doxal ni ci entre aide développement ak social rek lay yëngatu kon bu ñëwé seen bëgg-bëgg tombé ak li nga xamanteni ci lay yëngu di dimbali askan bi kon rafet nañ dër ci loolu loolu la sëriñ bi ni woon nañ leen ko jotali kon alaykum wa rahmatullah ma jox soxna Nday mu ni mu ngi ñuy santal ko sëriñ Diop ndax it mom motax ñu xam leen ba ngeen ñew ci wetu Cheikh Abdou loolu am solo loolu ñu ngi koy sant bu baaxa baax di wax ni Sonko dafa nek ko xamni il faut que nit ñi def ci attention ndax Senegal dafa nek rew mo xamni dafa fondé ay valeuram ak seen ngeum ci ak lu ñuy wax ay tarixa ñun dañoo gëm tarixa loolu motax ñu top Serigne Touba lolou motax ñu top Alaaji malik ak Baye Niass waaye Sonko gis nañ doxinam doxinu ñi nga xamni ni mënuma wax moy ñi nga xamni dañuy dajale ay nit manam di fayanto ci walu l'islam te lolou lu lu doy war la seen xel nak bimu delsé ba ngeen xamni mënu leen fenn joxoñ président Macky Sall lolou soxna nday ak wa koñ bi dañ leen di sante serigne bi dina leen jappalé dina len jàppale ci matérielu jigen dina len jàppale ci ay machine dina len jàppale pa ak pap Diouf wa pap ñukoy sante bu baax baax dina len jàppale ci lepp lo xamni ci walu formation la ndax lu mel nonu daf koy def bay mbay ñu koy sant bu baaxa baax gis nañ taxawayam kon nak japp ni xaw ñu ngi leen di sant di leen ñaan na ñepp jëli seen carte électeur bu bisba ñu votel président Macky Sall ndax limu mu naal mu mën ko agalé ñu ngi sant ñëpp. loolu nag mooy euh, ku gis askan wi nekk suñu ginaaw xam leen do wax ni da nga leen di jëggaani ci benn réew wala ci benn dëkk lu may Touba gi nga xam ni fi lañ juddoo yaro fi màgge fi biñ fi yaro fi fi am ci ay activité yu ndon def te gëm ko war ko doxé muy politique ñu judd ci màgg ci di doxal doxine bu leer a ba yalla dogal nak ñuy dox di dox. ba ànd ak benn leader politique boo xamante ni ñu ngi koy woowee docteur Abdoulaye Niane bi nu àndee moom di dox ba législative jaax ñu ànd ak moom ci biir diir 6 mois 6 yooyu ñu am 14000 voix ba nu amee 14000 voix ak tey mel na ni doxalin boobu ñu doon dox méngoo na ak li li ñu doon wane ci moom ñu dox ba jub li nga xamante ni moom la ñuy wax élection présidentielle moom mu dem lëngoo ji ak ku ñuy wax. Sonko la xawma ku Sonko wala wak Sonko lu tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko momé nak bamuy dem di wax amul concertation même bu ko amone té ñun Sonko bokku na mom gem gem bokku bokk mom aw doxalin tay aduna bépp jiin ko lo xamanteni bu fi Serigne Touba nekkon buñ ko tuddé dana julli ay rakka ngir ñaan boromam mu joggé fi kon bu boba bu fekkenté dañ wax keneen ku Sonko ñun duñ and ak mom Sonko tay duñ and ak mom Sonko ëlëk kon nak na xamni mam defu nu dara nu dara. ko gëm-gëm ba mu am ba ànd ak Sonko ñun gëm-gëm boobu loon amut ngir mën a defi leneen tey nag groupement bii nga xamante ni digg daaru xudóos ñoo jóg ànd ki nga xamante ni moom la maamam rëddën daaru xudóos ñu koy wax sëriñ Modou Moustapha ba bàyyam defar mbedd mi wax doomi sëriñ sëriñ si Amadou Mbacké ka nga xamante ni mbedd ku mu jaar te usatam moo fay daagu ñu koy wax si Abdou Mbacké Bali si Abdou Mbacké Bali moo nag nga xamante ni li ko ñor ku ne xam na ko muy sëriñ Touba di dëkk bi wax ko ci lamb ma deggu ko askan wi waxtan ci demb ñepp deggu ko ko ke lañu jox kaddu tay mo ma jox addu suba te bëgg na le 24 décembre képp ku dem dans université le 24 février ku dem université dar khodos bala no dem waxuma nak 50 yi may deg mais Touba dina am 65 électeur bo xam ne sal day jiitu fi Touba. ah parti bi nu nekkoon ñun moy Teranga senegal Teranga senegal googu ñu nekkoon doxal fa doxalin bu raw ba aduna signé ci ñun ci docteur Abdoulaye ñi ci siiwoon docteur Abdoulaye ñan tay ñi ngi ni di fukki responsable ak juroom yo xamanteni kenn ku nekk fa nga dëkk samar man 1 km ci biir dar Khoudoss ñoñe nak ñoo chapoté won dar Khoudoss ba Abdoulaye ñan am fa lam fa am ñooñee wëlbatiku nan dem rejoindre euh, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bali mu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ngir and ak mom liggéey Touba Abdoulaye Niane wax na la sank ne la nu dara ñoo bokk